bi ñu leen di leen dalalaat ak jàmm seen chaîne bii di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné tey ñu ñëw ak gën xam ci record moom record ma nga fasal ci xët yu njëkk yee Sadio moom journal bi mi ngi ñuy xamal ni El Tactico Aliou Cissé génn na liste ñaar fukki gaynde juróom benn yi nga xam ne ñooy dem jongante ji foofe sa Qatar yooyu ñaar fukki gaynde juróom benn nag journal bi mi ngi ñuy xamal Sadio Mané ak kookee di ji ju in ñoom ñaar ñii nag bokk nañu ci liste ñaar fukki gaynde juróom benn yooyee mais kii di saalimu Ciss ak kookee di Habib jàll out ñoom ñaar ñooñee nag bokkuñu ci list ñaar fukki gaynde juróom benn yi nga xam ne ñooy dem foofe sa Qatar jongante ji ba tey journal bi mi ngi ñuy indil gannaaw bi nga xamee ni moom Aliou Cissé mi ngi leeral ci kaawu Saliou Ciss moomee ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk match derby bi nga xam ni war na am sunu championnat réew mii ku ci mel na Jaraaf war a jàkkaarloo Gorée mais match choc boobee nga xam ni ñëpp ñoo ngi koy xaar Tëngéej FC war a jàkkaarloo Jàmbaar yéenekaay bu groupe Futurs Médias dañuy jubal La Tribune La Tribune nag moom ma nga fësal sa xatu njëkk ya international sénégalais bii di Sadio Mané mu ngàbb ballon ba noonee tàllal ñetti loxoom ànd ak confiance pour cent di def ay suré moom journal bi mi ngi ñuy xamal naan noo Sénégal day tànde malgré blessure yi nga xam ne l'international sénégalais bii di Sadio Mané sa la nekk nii ba situ si bëri Europe doon xamle ni l'international sénégalais bii di Sadio maane du teew si boobule coupe de monde ndax dafa am ay blessure malgré loolee malgré conférence de presse bi nga xam ni coach sa Bayern na boobee doon na ko def di xamle naan feek fukki fan dina ñu xool blessure Sadio Mané bi fu mu toll moom coach sa Bayern na bi yëkkati na ay kàddu di xamlewaat ba tey naan Sénégal dañu bëgg l'international sénégalais bii di Sadio Mané joué ñëpp moom la ñu bëgg mais su fekkente ni Sadio Mané dafa des di ànd ak blessure blessure bi continuer di metti moom l'international sénégalais bii di Sadio Mané Sénégal lu mu bëgg-bëgg moom Sadio Mané du dem si boobule coupe du monde ndax santé moo jiitu lépp malgré loolee fédération sénégalaise de football ànd ak El Tactico di Aliou Cissé boole nañ ko si liste ñaar fukki joueurs yi juróom-benn yi nga xam ni ñoo war a dem sa Qatar googee jongante ji waa fédération sénégalaise de football xanaa dañu xam lu kenn xamul si Sadio Mané mii wala dañ ko boole si liste ñaar fukki joueurs yi juróom-benn yooyee pour dalal xelu sénégalais yàlla moo xam ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk ay kàddu El Tactico ñu gën ko xamee si Aliou Cissé si ñàkk sélection bi nga xam ni sélectionné wu ko kookee di Saliou Cissé moom la national bu Sénégal lu mu dee dee foog nga am club